Duc. Espoir. Kayor Foot. AS Pikine. Tengage FC. taxaw ni Darou Salaam. ñëpp ay gardien Ligue 1 lañ fii ñu gis ni ah bon genre port fële ay genre port ay genre genre ñëpp fële leen ne. mais est-ce que sénégalais xam nañ liggéey liggéey fii non Sénégal bala ñoo xam dara da ngay dee. loolu motivé ba nga am initiative tey bu rafet bii. parce que bon lii laa xam depuis ma nekk xale. maa njëkk ne centre de formation les gardiens de but. ban année ban année nga ko njëkk a initié 2003. 2003 dama 2002 2003 à Kër Massar. on commence à fracture bi nga en 2000 décembre 2002 on commence par des Lagos noirs ay lacos mhm. noirs. Mhm. Mhm. tout le monde crie. Non, non Kaana li créé ni je ne sais pas mais. maintenant j'ai six gardiens Ligue 1 France six gardiens. y a Ligue France y' a Mouridjabi, il y' a Koubali, il y' a Papa Karfal, il y' a Dieynaba Diop y' a l'autre y' a Pape Demba Camara. Etc.. il y a six gardiens en Ligue 1 France. ñu gis ne aussi ba nga duggee Tëngéej gardiens yi fa nekk dañu gën a sur le plan physique tactique technique. ok tey ba ren sax bon mën nañ ne gardien Tëngéej. Euh, TFC bi waaw moo jël meilleur gardien. même daaw aussi. mais lan sa Ligue ban secret tey nga am boo xam ne tey koy renforcer si gardien parce que li ngay liggéey nii non coach franchement beneen affaire nga. non Full up, fayda intensité. Mhm. Full up, fayda ak personnalité mooy tax góol progressé ak xam li ngay def. un gardien du da nga koy tegal ay séance di dóor gardien bu ne am na loo koy def pour mu progresser man du yore góol te du progresser loolu moom dama la ko dégg ko yore góol te du avancer. mais la ñu naan góol yi parfois a a dof la. <laughs> maa ngi koy dégg sa ay séance voilà <laughs> parce que. Neuer mooy capitaine Allemagne. Mhm. Buffon mooy capitaine Italie. Mhm. Euh, De mooy capitaine équipe am. mooy capitaine équipe mais Sénégal fii góol un fou gardien. représente 50% pour l'équipe waxoon naa ci ci YouTube mais nous ñi ñoo comprendre. Mhm. un gardien de but représente 50% pour équipe un gardien de but man du may góol. Mhm. ma def choix sax équipe bu am ay jours damay dem fekk équipe bu bon ma dem jël ko dem jël parce que je représente 50%. pour ma xam ñëpp Port Jaraaf compagnie sucrière yi ma góol yëpp may nekk leader équipe. mais sama secret ku ñëw stade Amadou Barry di nga gis parce que j'ai des secrets yoo xam ne. Mhm. boo ñëwee fii di nga xam waa ji lan mooy secret. mais am nga loo war a maye parce que parfois bon jàngale tamit expérience. secret bi liggéey la mën nga am deux expérience yow mën a jox secret bi liggéey la. Uh-huh. liggéey parce que un pirate ak gardien boo xam ne boo tegee pirate yi moom xam na fan ngay dóor mais loolu secret la naa fan ngay ba démb on joue contre jàmbaar Stade Lat Dior. Mm-hmm. trois penalty man mako dicté penalty ma ngi gis daaw ñoo ko ñu dicté ko penalty mu japp 3 penalty té du mom kessé dé gis nañu aussi gardien yi nga formé yépp Babacar Fall penalty cinq bu ñu jàppul deux jàpp jali booy yi léegi boo indee kenn fi teg penalty dañ ko dóor boy bi espoir de Guédiawaye mi ngi kër mo japp penalty 90e minute match bi stop mu japp 5e penalty équipe bi gay parce que lool suñu secret la goal autorité la autorité man boy goal autorité sama surface kenn dafa def luma neexul sama ligne de but mom bo fa duggé dig ma tàggu mais un gardien de but bo xamé gaay gars yi ñoo ko wax lu muy def kooku du un gardien bi man dama naa si baaraam dama naa ci faar dama naa ci poignet dama naa si tànk lépp je prends des risques sama surface dama jël ay risques gars yi door sama bëñ yi dañ amul benn problème parce que man maa tàmm gardien bi mais un gardien de but boo xam ne day bañ a taq toilette wu mhm. kooku moom man du ma ko entraîné boo gisee booy nii gis nga leen seen bopp yi ñëpp lay wat mhm. dëgg la bu indi benn kii sax ma wat la dama lay wat parce que fi amul da nga war a correct correct waaw li ngay def moo lay exposé mais du yaram bi ngay équipement yi ngay sol ak létt yi ngay léttoog yooyu noonu moo lay li ngay exposé il est le meilleur gardien de Sénégal. Mhm. Pap meilleur il est le meilleur gardien Pape Cheikh Ndoye sama mon la Cheikh Fall Babou Sénégal Fall aussi bon may ñu transfert même aussi ba Sénégal club joueur est-ce que transfert est le lu muy Oui, parce que joueur gratuitement. il faut un accord de reconnaissance. Mhm.

Nous avons un accord de reconnaissance le centre bi réforme accord de reconnaissance. accord de reconnaissance fédération fédération franchement accord de reconnaissance accord de reconnaissance ba ku jël sama mhm. kenn 000 000 million millions mais mhm. millions. Mhm. mais quand millions. parce que c'est le formateur. bien sûr.